من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وموالاه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المصطفى لبن القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكمد بقيت دينو لن يبخد لن زياره jiital ci nuyo bi sahibul fadila ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom mu yag fi loolu tànn ko wër waye ziar bu baax ak a ñaanal njabootug suñ Tuubaa gi yëpp bokk yi ji la altine juroom benn fan ci weeru février di bis bi nga xamné ci la Cheikh Mouhamadoul Mountakha tan muy bis bu reuy ci mom mo war ci tambali liggéeyup université bi nga xamné mom la suñ Tuubaa mébétoon boole ko ci ay mebetam yi nga xamné mom la fi bayyi ginaawum mu eggaleel ko ko tabax ko taxawu ko ba egg tey jii nag mu fas yéene tàmbali njàngam incha allah ci altine ji di juróom-benni fan ci weeru février tey jii nag murid yëpp daje fi taalibe bi Sëriñ Tuubaa yëpp daje fi waaye adduna bi yëpp daje fi waaye waa réew mi yëpp daje fi ngir lan ngir jàppale Cheikh Mamadou Mountakha ci mbégte mu réy mi nga xam ne mbégte féete ko kaw ci moom ngir eggale gu mu eggale yéene Sëriñ Tuubaa ndax wax naa léegi ne Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne bil Mustafa libanal qudusu madrasatan biha yadulul aza wal jahlu wal kamadu moo dafa wax ne ci barke Mustafa suñ borom tabaxal na ma daara joo xam ne ci daara jooju yëgawlul aza ci la lor di jeexe al jëxlu muy réer ci lay jeexe al kamadu muy njàqare ci lay jeexe kon tey mën nañoo jàpp ne lor jeex na njàqare jeex na ak réer jeex na Cheikh Ahmadou Mountakha taxawal na yenee Sëñ Tuubaa ba eggale ko tey nag loolu moo ñu fa dajale moo tax ñu fas yéene ànd ak yéen incha allah ci couvrir bu matale boo xam ne dañuy ànd ak mboolem journaliste yi nekk Tuubaa yëpp ak mboolem presse Sénégal bi yëpp incha allah fas àndandoo ngir def ko ni ko sëñ Muntaxa bëggee moo tax na ñu fas yéene def ay reportage yoo xam ne dañ koy dem ci kilifa yi di leen laaj niñ taxawee ci bis bi ak seen yëg-yëg incha allah ci lañ jëm ak yéen incha allah ci kanam tuuti bisimilah. ñu ngi dee toog ak sëñ Souleymane Diop bokk ci kilifa yi nga xam ne ñu yor wàllu culture bi ci wàllu isperxia mu jëre njàngum alxuraan mi ginnaaw bi ñu la nuyoo Baye Souleymane ziyaara bu baax ci bis bi di la ndokkeel ci mbégte bi nga xam ne moom la murid yëpp am ak taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak mbalam jullit yi ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne Sëriñ Muntaxaa eggale na ko te ji nag yéen leen fekk ngeen jàng alxuraan ñu bëggoon nag say kàddu ci wàllu taxawaay bi ngeen taxaw ci wàllu culture bi incha allah ak njàng mi ah, ñoo ngi sant bu baax a baax Sëriñ Tuubaa mi ñu booleeg Sëriñ xaa ñu ngi fii ci biir université bi di jàng ay kaamil bin xëyeeg léegi jàng gum na lu mat fukki kaamil ak juróom ñu ngi tàmbali 8 heures ñu ngi fi di sant yàlla mi nga xam ne nag euh, moo ñu booleeg sëriñ bi ca sëriñ bi léppam di alxuraan mu defar kër goo xam ne kërug alxuraan la ñu fi jàngale alxuraan di ko mokkal di ko tari kon ku fi nekk ngi di jàng alxuraan def nga li nga xam ne moom la sëriñ bi digale ñi ngi ñaan Cheikh moom nu taxaa mi nga xam ne moo sos lii yàlla bàyyi ko fi may ko fan wu gudd waanu ko wér te barkeb sëriñ tuubaa yàlla dimbali ñu ba mboolem liñ ciy wut ñu taseeg moom ci njariñ njëriñ barke Seexul Xadim ci wàllu liggéey bi bi nga fi ñëwee ban yëg-yëg nga am ci taxawaayu liggéey bi ak gaawaay bi mu gaaw ak contexte bi ko sëñ Mountakha santaane muy comme Covid 19 loolu lépp teewul murid yi réalisé lu toll nii 37 milliards yëg-yëg boobu. loolu itam du lu doy keemaan loo xam ne weesu na am xel ndax sëriñ bi dafa jubóog boroomam ba ñëpp xam ne ne sëriñ bi daana sëriñ Abdoulaye daana wax ne sëriñ bi daawut santaane dara. lu weesu bis bi mu ko santaanee lépp lu mu santaane rek lu mën a am la mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom itam li ñu àndoon woon ak moom mooy luñ ko lu mu santaane lu jamono xat-xat loola daan ko def lu mu ko bëggee loola nag ci lii rek la bokk kon ñi nga ñaanal mu Mountakha bi nga xam ne moom la yàlla dogal mu tàmbe ak moom yàlla defal ko fan wu gudd wàllu naal yi li muy di jaxasoo jaxasoo. ñu ngi ko tàmbali ci xat jamono waaye yàlla ak barkab sëriñ tax na li ñu ci réalisé kenn ko gës xam na am xel. jërëjëf jërëjëf Baye Souleymane jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàgg la fi loolu tam may ngeen ko xamee ñu ngi fii ci université bi tey di juróom-benni fan ci weeru février bis bi nga xam ne ci la sëñ Muntaxa wala ubbi daara ji nga xam ne mooy daara sëñ Tuubaa ji ci limaahin basirin bil Moustapha Liban al Qudus madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kamadu sëñ Assane ñu ànd ñu taxaw ak yow nga bokk ci ñor wàllu culture bi ci wàllu Hizbut-Tarqiyyah bis bi nan ngeen ko waajalee ci wàllu culture sëñ Assane. dinaa boo suma ak maa ngi lay siyaare bu baax di nuyu ñi bàyyi xel bu baax di ndokkeel eh, Cheikh mun Mountakha Mbacké di ko ñaanal gudd fan ak wér eh, di siyaare bokki jullit yëpp di sant bu baax ci bis bu bii nga xam ne bis bu màgg la ndax jëf ju ji nga xam ne Eh, sëriñ bi jëf na ko eh, bi nga xamee ne jot nañ digale itam jaare ko ci suñ jëwriñ sëñ Youssou Diop eh, ñi nga xam ne ñoo yore wàllu activité culturelle ci daara ji rawatina kuréelu xasida yi am na ay tëral yi ñu ñu tëral niñ ko tërale mooy jokkoon nañu sax fédération yi nekk fi nga xam ne ci Touba lañ nekk te bokkuñ ci tarxee waaye ay jànkati xasida lañ ñu am ci limu junni nit ñoo xam ne dañ leen fas yéene tey jàngaloo ay xasida ngir eh, màggal jëf ji ak réyal ko ak eh, wone dayo bi nga xam ne am na ko junni nit ñooñu nag eh, bokk na ci programme bi mooy danañ jàng ñett xaside yi ñoom ñëpp àndandoo ko mooy xasida ak li maahin bashirin nga xam ne bayit bii nga wax ci sëñ Touba wax ci ni ko sunu borom tabaxale ab jàngu bayit bi ci biir xasida googu la nekk Euh, junni nit ñooñu tey dinañ ànd jàng xasida googu ba mu jeex dàkk ñoo koy àndandoo jeex ba jeex jàng ko ba mu jeex dàkk loolu yaakaar naa bu 10 heures jotee di ngeen gis ne mi ngi tàmbalee bu loolu jàllee xasida ak mawaahibu it dañ ko ànd ñoom junni ñooñu jàng ko ba mu jeex dàkk bu loolu jàllee bu sëñ bi dugg si waaj nañu xasida ak busra la naa muy xasida ak mbég xasida ak cant ngir gàtt gàttandu sëñ bi kañ ko euh, ñu xam ne nag jëf ji dafa rëy taxawaay bi dafa rëy loolu itam euh, yëmul ci Hizbut Tarqiyyah rek kuréel xasida yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci dëkk bi jokko nañu ak ñoom boo coordonné ba nga xam ne boo ñëwee fee di nga gis kuréel Hizbut Tarqiyyah waaye di nga gis leneen mhm. ni ko organisé it nam ñoom mooy fexe nañ ba kenn ku ne jox la xàmmeekaay mooy badge boo xam ne day wane ne kii eh, jànkat la ñu jox leen mbaar mu mag moo xam ne ñoom kese ñoo fay nekk eh, kenn ku nekk itam ñu ne la solo lu weex mhm. loolu dara lañ ci jublu lu dul rek màggal bis bi ak eh, wane dayo bi nga xam ne bis bi am na ko kon yaakaar naa ne foofu daal lañ tolloogum ci ci programme bu si kanamee léegi dangay gis ñu organiser leen par ay cercle su ko defee bu waxtu bi jotee rek moom njàng moom day tàmbali dootul taxaw ba ba sëñ bi di agsi. macha allah sëñ Assane duñ taxaw yow te laajuñ la ci liggéey bu am solo bi nga xamee ne. sëñ Mountakha taxawoon na ko. te liggéey bi li ci gën a yéeme mooy contexte bi mu tollool. waaye loolu euh, day mel ni sëñ Tuubaa woonante na boppam ci wàllu woowu. ndax Covid bi la tollool. lu met 37 milliards. ñu lancé travaux yu toll noonu. ci diir bu gàtt bi ñu mën ko réaliser. loolu tam. waaw waaye loolu a Euh, sëñ Abdoulaye da doon wax ne euh, xol yu nangu moo gën mbéy mu nangu te nee na xol yi nangu la sëñ tubaa euh, kon liggéeyal sëñ tubaa laajul contexte la mu laaj mooy xol yu nangu te bu jógee rek sëñ tubaa tax murid ji seen xol dañ koy nangu ñu def ko seen benn liggéey nañ fàttali ko la sëñ bi waxoon ci ba mu koy woote nañ koy yëkkati bu mu laal suuf ñu koy doxal waaw waaw kon yaakaar naa ne yitte jooju la ko la ko murid yi fekk see moo tax lii ci diir bu gàtt nga gis li nga xam ne murid yi def nañ ko te déggoo sax coow. yàqalu leen bisub màggal yàqalu leen ak cant yàqalu leen ab ziar waaye kenn ku ne dañu xam ne day naal bu mënta ñàkk moom nag ku ñu war a kañ la sëriñ bi ndax euh, moom rek lañ gisee ci àddina kenn nit ànd ak mbooloom financé ab université euh, loolu itam da lay woon nag moom fi mu teg xam-xam te jëlu ko fenn fu dul ci sëriñ Touba sëriñ Touba dafa fonkoon xam-xam ñaana ci dëkk bi sunu borom mu def ko dëkkub xam-xam adduhonka an tajhaluhu daara tuqa wal hilmi wa din wa daara lirtiqa mhm. daa mel ni sëriñ bi gis-gis boobu la am kon ñong ngi koy kañ bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér mhm. di ko ñaanal kattan mhm. eh, mu dund ba doon tan ci àddina loolu yaakaar naa ne ak cant la eh, te di ko kañ adina sepp xam nañ ne gisin bi mu am ak taxawaay bi mu am eh, gisuñ ko feneen loolu nag mbegg la ci ñun ñi nga xam ne moom lañ yaakaar ci topp ci ginnaawam jërëjëf sëñ Assane duñ la taxaw duñ la taxaw loolu yàgg ndax xam ne yaa ci liggéey bi waaye li yi nga xam ne moom ngay denk ñi nga xam ne ñooy ñëw rek mm. ci jataay bi rek ak nañu war a sàmmonte ak jataay teggin rek ak yar ndax xam ne nag euh, ki ki ki ki liggéey liggéey bi euh, royuwaay la sëriñ bi royuwaay la ci ak taalibe royuwaay la ci bëgg bi royuwaay la teey royuwaay la ci yaatu royuwaay la ci yéene ñëpp lu baax loolu itam yaakaar naa ñun ñi fi ñëw euh, loolu bu ci jiitoo rek li si des dina yomb incha allah ñoo ngi sant bu baax jërëjëf sëñ Assane Diouf ñu ngi lay sant baax di la gërëm allah bàyyi la nga dem ci liggéey bi kon mi noonu ci kanam tuuti incha allah ñu ñëwaat ak